tudd Ousmane Diop ñu gën ma xam ci nóoré ni ma nekk doomu Diamaguène jiite kuréel gu ñu naan collectif pour le développement de Diamaguène ñëwee fi nag di waxee ci kàddu askanu Diamaguène rawatina jeunesse bi ci kuréel gu ñu naan collectif des habitants de Diamaguène. waaw li waral ndaje bi lenn rek la ndax mooy Diamaguène dafa am benn problème foncier qui date depuis 1960 sunu maam yi di ci daw di ci daw di ci daw ba génn àdduna tey jii sunu papa di ci daw ñun xale yi ñu hérité ko mu nekk problème boo xam ne problème bu sérieux la ndax à chaque instant dañuy toog ñun ñu indi fi assignation gendarme yi ñëw wër suñu dëkk bi ñu expulsé ay doomu aadama génn leen seen kër yi nga xam ne sunu maam yi ñoo ko sancoon loolu moo ñu fi waral tey. expulsé pour lan. génn ñu sunu kër yi. ndax dañoo jël kër yi jaay ko ñeneen. ñeneen ñoo xam ne tey jii dëkkuñu fi dañ leen wax terrain nii dañ leen di jaay ñuy lancé message le nouveau président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye état de droit nga woote ñun population Diamaguène ñoo ngi lay lancer appel nga dimbaluñu lijjantul ñu suñu titre foncier depuis 1960 ba léegi suñu papa yi daw nañ ci ba génn àdduna suñu maam yi daw ci loolu lañ lay lancer appel. beneen bi may wax ak jeunesse su Diamaguène population bi nañ leen jug takku bokk nday bokk bàyyi xeex ba jot suñuy titre foncier. beneen bi beneen bi mooy maa ngi lancer appel ñi nga xam ne dañoo yor ay kayit ñu ne dañ leen a jaay kër yi fii jàmm gën képp ku fi ñëwati di génnee kenn kër sunu bakkan lañ ci gare lay rey sunu sunu combat sunu combat foofu sunu ko sunu combat day dem incha rabi ba ñi nga xam ne tey jii ñëw nañ fi jël fi ay kër incha allahu rabi dinañ demaat ba ci kër yooyu yëkkati ko waat ko jox ko seen man Souleymane Thiam laa tudd man maay président du collectif de habitants de Diamaguène ñun Diamaguène bàyyi ngeen leen jóge fi HLM 1 nekk suñuy papa yi dañu xëy xëy rek ñu leen ñu leen jóge leen fi amuñu fuñ leen jox ñu tënk ñu daje ñoom daal di fexe ba ñëw fi négocier ak léegi bi deux familles bu ñu ñu def promesse de vente paa yi ku nekk joxe 2000 francs c'était en 60 ñu maasale ko ndax fii bi ñu fi ñëwee ay tëllëg ay bukkeek lu nekk fi lañ fi nekkoon c'était une forêt vierge fekk ñu fi woon dara paa ñoo ko defaraat ba mu nekk nii. duñ ko defee ñu dagg ko kër gu nekk ku nekk dañ lay jox kër gi nga fay vingt quatre mille à raison de mille francs par mois. benn famille lébu bi ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko jëlee woon à cinq millions la famille 77 euh, 98 mu mujj nekk 446 DP ko jëlee woon cinq millions trois cent sept mille sept cent francs. beneen famille bi c' était là c' était le titre foncier 80 99 mu mujj ko woon million millions huit mille. fay nañu ba nga xam ni dans ci famille ci famille euh, ci premier bi 5 million bi fay nañ ba dese un million cent 385 mille lañ ci dese woon beneen bi nga xam cent 374 mille lañ ci dese woon franc bi ñu defee mu am benn groupe bu yeewu daal ni léegi au lieu ñoom dootuñu ti bi ñu fayul nag la lébu yu commencé bi ñuy commencé paa yi seen avocat validé woon maître valide c'était un français bu inscrit woon ci barreau de Paris ba période de dakaar bi moo doon nekkoon temps boobu Doudou Ndoye était stagiaire là-bas Wally bi muy dem Doudou Ndoye hérité du problème la ci li ñu paa yi wax li ñu nett li mu mu mu mu hérité des problèmes là di àtte paa ba paa yi gagné le procès là il a en ce temps là am na ay ay borom yu ñu fi waroon génne ndax ñoom ñoo opposé woon. il a fallu que l' intervention de Thierno Seydou Nourou Tall yàlla na yàlla lokk leeram comme ay tukulóor la ñu moo ñëw intervenir ni leen bàyyi leen leen comme yéen ñëpp bàyyi ngeen fexe leen nekk benn ñu fay moo indi boobu. de de problème en problème rek ñu dem ba nga xam ni du en pleine audience le le le le désister daal ni mënatul défendre paa ndax fekk na ñu gagné woon procès bi ba pare. lébu yi ni ko yow doom ci li ñu ñu war nettali ndax temps boobu on était très jeune c' était en 63 ñu ni bi ñu ñëwee lébu yi ni ko yow suñu doom nga ba pare di ñu xeex ci la désister bàyyi paa yi paa bi ñu leen di jugé pour jugement bi ñu casser vente bi on les a jugés par défaut. ndax temps boobu moo nekkoon seen avocat Doudou Ndoye amuñu beneen avocat biñ leen di jugé kenn fekkewu ko ñu ñu cassé vente bi bi ñu cassé vente bi borom kër gu nekk dafay joxe waat cinquante mille francs à raison de deux mille cinq cent par mois bi ñu ci d' accordé pas yi d' accord ñu euh, nit mënu la mënu dafay jënd kër ñaari yoon nga fay ko ci Samba Dramé ba matal ñun la da ngay fayaat cinquante mille francs pas yi d' accord ñu woon ñu indi opposition. ñu constitué en regroupement ndax bi mu am xale la woon bi ñu demee ba xam affaire bi ñu ni kenn mënul xeex ak décision de justice a seet nan lañ koy euh, nan lañ koy arrangé à paa ñu ñun dañuy fay paa dem di fay paa yi di dem di fay ku ñëw dañ naan la cinquante mille ngay fay paa yi mujj fay yëpp cinquante mille lañ ko fay. léegi bi ñu ñëwee actuellement bi ñu ñëwee actuellement li ñu ci jëkk a mooy que am na kër yi nga xam ni fayoon nañu comme Abbas bi ñu mujj assigné fayoon na chez le notaire ba mi ngi reçu jaayaat nañu këram ba kii enfin on a fait un ça d'un règlement de compte pour ne pas étirer sur le le ñëw notaire ba ñun la jëndal kër gi kër Abou bi xam angle la tase Abou Diagne doon doon doon vis-à-vis kooku mënu ko jëndal kër gi nangam nangam ñu fexe ba jënd kër googu Abou Diagne day xëy xëy rek ñu dul ko assignation ni ko yow kër gi moomatoo ko kii moo ko Ablaye Ndiaye moo ko jënd wala affaire bi am na nag ay démarches ñu ci ba nga xam ni am na ñi nga xam ni dañu gëm yàlla biñ demee wax leen ko dañ ni ñu man comme benn waay bu nekkoon cité marine dañ ñëw mu ni man du ma génn kër pour dugal kër lu war a mat téeméeri nit ak juróom ñeent teg nañ ci loxo am na ñi nga xam ne dañu ñëw bu ñu amee problème bu ñu ñëwee jënd ko mënuñu ko jël dañu jël kayit gi dem tribunal tayle ko comme titre foncier la bu ko defee léegi ñu bàyyi fa kayit gi duñu demati banque nag bu toogee ba soxla xaalisam mooy indi vente bi ñuy jaayaat ci suuf loolu nag lañ ci def def nañ foo képp koo xalaat ci suuf ñun bu ñu commencé ak léegi en 84 ministre d'état bu fi ñëw gouverneur bu fi ñëw préfet bu fi ñëw sous préfet bu fi ñëw ci gox bi dem nañ fa wax ak yow am na ñi xam ne dañu démolir seen kër sax am na benn maire bu ne fi maire Ndiago dafa tabax këram ba pare toxu si amu fi un un mois mu liggéey bu dul woon ci waa population bi dañuy maasale kër gi ñu ñëw toj kër gi ba mokk rumbax ba léegi ba yàlla kenn du fokkiw am na ay kër yu bari yi nga xam ne dañ ko toj depuis 84 ba léegi ndax li li indi ñuy ñuy incriminer Doundoye Doundoye était l'avocat du Lébou te en 84 la affaire bi commencé te Doundoye fut le ministre de la justice en 84 loolu moo tey suñu xel ñun. sama papa àndoon ak Pa Samba Dramé depuis 1960 ba nëgëni léegi nag man li ma ciy wax bariwul. monsieur le président de la république monsieur Diomaye Diomaye Diakhar fay ak yaa monsieur le premier ministre Ousmane Sonko man yéen lay interpeller comme yéen ba leen injustice injustice bu rëy a rëy a rëy ngi fii ci biir Diamaguène depuis 1960 ba nëgën ñu ngi jël sunuy kër jëndaat sunuy kër kasa sunuy vant kasa vente fan moo ko am ci senegal kër gu ne ngeen jaay ñu ko fukki junni wëlbatiku waan na kasa nañu vente bi léegi kër gu ne da ngeen di dolliwaat fukki junni muy ñaar fukki million ak ñeent fan la am fii rek la am ci jàmm gën toj suñuy kër di ñu génne di ñu maate di ñu wan ñun amuñu doole ci biir Sénégal dafa mel ni ñun bokkuñu ci dëkk bi ay madame taami ñu wala ay njuddu jéeri lañu te fii ñu dëkk ci dëkk bi di ay sénégalais monsieur le président audience sañu bëgg audience sañu bëgg ñëw toog ak yow jox la sunu mémorandum wax la suñu problème mu dëkk nga saafaraal ñu ko loolu daal man moo ci nekkoon sama wax ndax yaa yore signature bi yaa yore décret bi keneen nag mënu ko ci senegal yaa yore signature yaa yore décret. fii suñ suñu suñu bàyyi ñoom ñoo ko sanc depuis 1960 sonn fi loolu nag lu nekk daj nañ ko fi waaw boobu léegi nag euh, fitna bi euh, ñëw fi yàgg na fi. te xam nga suñ borom wax na si alquran nee na ngeen moytu fitna ndaxte fitna bu ñëwee du yem si ñu ko sooke. yonent bi sallallahu alayhi wa wax na si hadis mu ne nangeen xam ne fitna de mu ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee te lii nag xam ngeen ni fitna la kenn xamul dégg nga de fu mu jëm ak lum nar a jul kon nag daal si gàttal euh, maanaam affaire bu mu amee ba léegi fu nekk dem nañ fa. ana régime président Abdoulaye Wade jàmbal nañ ko dara sottiwul régime président Macky Sall fu nekk jàmbal nañ ko dara sottiwul léegi nag yàlla dogal na am nañ régime bu bees muy monsieur le président Bassirou Diomaye Faye euh, mbir mi daal si moom lañ am yaakaar wax dëgg yàlla euh, bu bëggee mu jeex incha allah de jeex léegi léegi te am nañ si moom yaakaar ñu ngi sàkku si moom ndimbal Euh, coow bi mu jeexalal ñu ko. di am naqar ak nag ci li nga xam ne moo xew Diamaguène te man mi di wax ak yéen fii laa juddoo jóge Baye Gaynde en 1962 tey am naa 62 ans kër yi kenn mayuñu ko kenn saraxuñu ko suñu bàyyi ñoo ko jëndoon di ko verser ba mu jeex takk kon bu amee litige ba ñoom lébu yu ñëwaat songaat ñu ba ñu da ngeen fayaat fay mënut te nekk te ñu fay sax ñu ngi leen di daal ci seen kaw te ki ñu assigné muy Abbas fayoon na 50 000 francs ca ba. te tey ñu ngi daal ci kawam taxawaay nag lañ bëgg ak la président mu bàyyi ci xel bëgguñu xeex bëgguñu xuloo bëgguñu trouble à l'ordre public. nous sommes des autorités ñoo fi teewal état nous sommes état état nag mooy mooy mooy artu état le nouveau état moom lay artu sunu président ngi nii toog taxaw sunu ginnaaw monsieur le maire Alioune Badara Bèye c'est lui le président de la république je peux dire il est avec Sonko il est avec Diomaye kon il avec l'état ñu ngi avertir ñëpp bëgguñu bakkan root fi bëgguñu leneen li ñu bëgg mooy jàmm salaam le président dox ci li mu ci war a dox xam na ko mën na ko il a le décret il a été à la domaine xam na lan mooy impôt ak domaine xam na luy suuf te suuf si ku ne na ni lu ñu lëjal la mënoo jaay ay nit terre jënd ko fay la ba defee deux millions nga ñëwaat ni cassé naa ko da ngeen di fay par force bëgguñu coono bëgguñu xuloo ñu taxaw fii léegi àlaaji naar waat mi ngi dal nañ ci kawam abbas dal nañ ci kawam surgara coono jaay ko dénkaane woon jaay ko jox ko keneen mer gaje dee suñu baay jong dañoo jaay kër mu feebar ba dee ak yeneen ak yeneen kon nag on fait l' précaution yi mooy taxaw nañu temm ku fi ñëw bëgg ñoo attaqué ñu attaqué ak ku mën a doon nag que soit état que soit la police que soit la gendarmerie na rey ñu dee ñu dee kër te loolu ce sera pas possible moo tax ñu bañ loolu moo tax en autorité ñu bëgg avertir l' état nga xam ne moo yor kattan bi moo yor doole bi mu bàyyi ñu xel ñëw dindi lii balaa histoire di am marre on en a fatigué sur notre titre foncier de nos pères. document li ñu fi wax nii danañ ko tënk teg ko ci ay loxo yu wóor parce que ñëpp xam nañ suñ diggante ak président Diomaye ñëpp xam nañ aussi que bi ñuy dugg ci politique mooy xeex injustice moo ci dugal donc du ñu nangu. man nekkuma li gars yi di wax nee naa leen nekkuñu ci wax ay gars yi nañu arrêté nañu fay li ñu jot a yàq lañ leen wax borom kër yi ñu jot yàq lañ leen fay ba pare doog a arrêté arrêté bi am à la kulli parce que fi dugg ñu duñ arrière on te fera face mais li gën a solo mooy au ba ñuy dugg ci politique di xeex c'était pour quartier bii ñu juddoo yaroo fi màggee fi muy jàmm gën pour injustice bi arrêté pour toj yi arrêté pour yi arrêté ñun amuñu commencement ak fin ci wàllu ambition loolu dëkk bi ñu dëkk nekk dëkk boo xam dañ koo jox cër nekk ñi nga xam dañ fee ñu bàyyi leen ci jàmm wala ci leneen leneen lu dul loolu soxla wuñu politique parce que politique bu ñu koy def c'est pour defar sa moo tax ma ne prédateurs yi nga xam ne yéen da ngeen nekkoon ci nguuru Macky Sall nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ak Senghor yéen rek nañ bale dégagé leen incha allah boole leen ñëwaatee ci quartier bii di jàmm gën naa da fi laal dara vous nous aurez en face kenn du arrière fii kenn du reculer ñun suñu droit duñ ko négocier y a même pas à négocier ou à ñaan ñaanuñu saraxuwuñu dañu ne suuf si nga xam ne droit 18 ñoo ko moom tabax fi ay kër def fi 1963 lañ fi ñëw ba maintenant presque on est à 60 ans ñu continuer 64 ans ñu continuer dañuy continuer toj ay kër loolu fit la yaakaar naa nag bëkki bu dogee waxal mbaane ci doxin ba la jàmm gën a pris sa liberté on s'est battu pour arriver au pouvoir pour régler ce problème si vous êtes là vous n'aurez plus amatu problème ak population yi yéen ay député ay maire ngeen amal problème ay nit ñu am responsabilité ci état bi et il faut l'assumer li ñu wax nag mooy muy jàmm gën muy Mbour muy Tabago muy feneen foo xam ne yéen ngi fay toj ay kër nekkoon ay prédateurs fonciers vous nous aurez en face parce que un audit foncier maanaam danañ saytu suufu Sénégal bi yëpp li ngeen jëloon ci littoral bi tabax fa ay kër te wala nga ko tabax la ngeen jëloon ci ay espace yoo xam ne foofu kenn waru foon dëkk la ngeen jàppoon di ko jaay di ko jaay di ko seen dëkk kenn ku nekk dina ko fay dërëm fistin ba mu jeex tàkk duñu leen baal duñu leen bàyyi parce que yàq ngeen àdduna nit ñi ay kër ngeen tas askan ngeen tas ay njaboot ngeen tas ay dëkk ngeen tas te jàmm gën ci la bokk te incha allah dama leen bëgg a xamal ne euh, euh, président Diomaye la ñuy yëgal ne ko euh, problème foncier yi am senegal jàmm gën moo ci mag wala jàmm gën bokk na ci gën a mag ndax jàmm gën moo mag jagsaaw gii jagsaaw 64 la fi ñëw jàmm gën moo mag géejawaay géejawaay 64 la fi ñëw jàmm gën fii 60 gis nga ticket bii boo ko war boo ko wanee gros plan samay parents 61 lañ doon la ñu dagg versé la ci kër ci kër yi maanaam kë xaalis yi ñu doon versé ci kër yi kër kii ci la bokk maanaam ticket lañ doon versé dégg nga vingt quatre mille francs à raison de deux mille francs par mois soixante soixante un mi ngi nii soixante et un sama sama sama parents yi ma bàyyeel booba maa ngi am quatorze ans léegi macha allah maa ngi ci yàlla ak ma suturaal di suturaal sama yenn mbokk yi ndax guerre boo gis dina am am ay ay ay nu mu am ñu def am ñu des waaye souvent maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay mi ngi lay euh, dimbali maag semaine mbokk yi fi des yal na yàlla si xeb dolli yal na yàlla xeb dolli man tëdd naa ci kaso def na 100 mètres am na ci ay seede ñu fi Sénégal mais li nga may dégg waaye ma ci jógee ba ñëw e bari yàlla yàlla yàlla ngi doon sutura daal mais subhanahu wa taala dëgg rek lay lay lay féete dëgg rek lay atte waaw euh, sunu kër jàmm ga yi nag dañu wax ba si jumaay mu dimbali ñu te xam naa ne mu xam ne moom nitu dëgg la te foncier bu ñu mën a bu ñu a bu ñu mën na na bi bi moom Macky foncier waaw parce que ñoo ngi jógee Dakar 59 ñëw fii 60 60 yee lañ commencé dagg tike yi tike yaa ngi nii macha allah ba léegi yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla xeeb dolli yal